professeur Iba Barry kamara qui dit actuellement que képp ku yaakaar ne Ousmane Sonko moo ngi inéligibilité mënaguñ ci addu parce que foo ñu dem en pouvoir de cassation et cetera et c'est quand même même perception boobu noonu. nga la peine n'est pas définitive. définitive wax na dëkk mhm. il a perdu son éligibilité partiellement. il faut yoon may na ko fi mu ne nii il a épuisé deux jours xaw ma trois jours. il trois jours pour aller en cassation mais le malheur cassation duñu xool sur le fond c'est sur la forme la ñuy xool mhm. moo tax nit ñi mën a njort ni puisque forme bi dégguñu benn yoon ay avocat am casse sur la form donc dañoo moo tax nit ñi ne il mais Juan Juan yàgg na yàgg na fustiger forme bi ci sur le procès Juan Branco oui kuy Juan Juan avocat français Euh, ki ñu jàppoon pour affaire viol en France. je sais pas mais Juan laa wax. waaw moom non dama ne. je moi je parle de Juan. je sais pas yaa ko ci yokk je parle pas de ça mooy ki ñu jàppoon pour affaire viol mooy ki toog mooy ki toog France di saaga suñu président de la République mooy kooku ah. ñun ñëpp sénégalais yi dañu waroon marche ba mu wàccee Sénégal ñu dóor ko bal mu wàcc. parce que soo ko defoon c'est extrêmement grave mais bien sûr soo ko defoon France soo ko defoon France. doo ko xam ne c'est extrêmement grave. il a insulté notre institution. dafa toog France cinq heures avant son départ mu toog di publier sur en statut di saaga suñu président di ko traiter de tous les noms le président de la République de tous les Sénégalais def ko France na ko se na ko nañ ko def France nañ toog fii man naa ko def fii jël Macron traité ko de tous les noms jël avion dugg France dafa jot ci ñu déporté ko ba pare plus grave comment il s'appelle ce Juan là prostituée là. Ah non, même pas. C'est un grand prostitué. Faut pas, faut pas aller au-delà. Non, aussi, non, hein. attends, il trompe, il peut tromper les Sénégalais, il peut tromper les gens de Pastef, mais il peut tromper tout le monde. billet aller rek la jënd billet aller rek la jënd simple. il n'a pas acheté le billet aller-retour il a acheté un billet aller simple kuy tukki doo jënd billet aller-retour ba billet aller simple kuy tukki doo jënd billet aller simple retour ngay jënd pour dire qu'il n'est qu'il est comme son client. ok par rapport ak éligibilité bi. maintenant su ñëwee ci éligibilité bi. article L vingt huit moo ne. du code électoral. moo ne pour nga nekk candidat à une élection il faut nga inscrire sur les listes électorales article L vingt du code électoral article L vingt neuf ñëw ne. pour nga perdre sa éligibilité définitivement à vie il faut nga def lii ak lii ak lii ak lii. diffamation diffamation L30 la ñëw. article L30 ne suñ la tëjee peine inférieure ou supérieure à six mois avec sursis tu tu tu tu es radié des listes électorales. ree jàppul la. du ma jàpp. day jàpp la ba nga lire article bi. déedéet lu bi. l ci diffamation. waaw diffamation tax ba war a mën nga ñàkk sa éligibilité. ce sont les textes de nos lois c'est le code électoral qui le dit il perd son éligibilité pour cinq ans pas définitivement pourquoi il perd son éligibilité c'est parce que du nekk sur la liste sur le sur la liste électorale dana c'est-à-dire il n'est plus électeur loolu tax ma commencé L28 L28 moo ne pour être président de la République il faut être électeur looloo tax Ousmane euh, Karim Wade dem inscrire yi en 2019 c' était pour être électeur demaat inscrire nii c' était c' pour être électeur ku nekkul électeur tu ne peux pas être un candidat te peine bii ñu ko daan Ousmane Sonko si la si si la pen et définitive il n'est plus électeur te ku nekkul électeur nit buy dund mënul tax nga nekk candidat. mais moom nee na amul mbindeef bu ko mën a doon. dama ne tax du doon candidat. ku nekkul électeur. mais moom nee na mbindeef. dama ne suuf. dama ne su nekk dama lay wax dama nee na mbindeef ci suuf. moom lay tontu mënta tax du doon candidat. su nekkul électeur nit buy dund mënu ko tax a nekk candidat s'il n'est pas inscrit sur les listes électorales il peut pas être candidat. mais ko ce que loolu tappale lalu ko. tappale lan. simple simple diffamation dañuy waxtaan simple diffamation dañuy waxtaan l' article L 28 L 29 L 30 bañ koy modifier il était à l' assemblée nationale moom Ousmane Sonko il était député à l' assemblée nationale dañuy wax nit ñi dëgg il était à l' assemblée nationale il avait voté ce projet de loi le code bi ñu dugal biir assemblée nationale dañuy wax nit ñi dëgg donc tappale amu ci. parce que nag ab président de la république du fen du diffamé du sos du sos ku bëgg nekk président de la république yow tu aspires à diriger tous les sénégalais ngay wax ci ay détails li ma sama maam waxoon rek laa lay wax ba mu may yar nit ñaar yi ko mën a sànq gémmiñam ak tubayam su moytuwul gémmiñam ak tubayam dina sànku te nag pour l' instant Ousmane Sonko gémmiñam sànq na ko te tubéyam sànkaat na ko mu koy waaj a sànq. ok suñ ko yare woon niñ ma yare peut-être dina moytu gémmiñam ak tubéyam. loolu moom xeetu xeetu tooñ la. parce xamoo moo def wala deful. dama ne ci tubéyam lañ ko jiiñ su fa demuloon kenn du ko jiiñ ci tubéyam moo def wala deful. yoonu koy wax. ok léegi ñu ngi xaar. mais nag fii moom. Mhm. ca bu njëkk ba ca gémmiñam moo def. ok ñu ngi xaar pouvoir en cassation ñu bëri jàpp ne le cas de Khalifa moom la ñu bëgg gisaat sur ba Ousmane Sonko. c'est-à-dire maanaam taf tafee mbir mi. parce que appel boo xam ne 45 jours la ñu ko def gis nañ fi l'affaire Téléco ak Madiambal Diagne qui a fait 24 mois l'affaire également Barthélémy Dias ak Ndiaga Diouf a fait presque 2 ans ou 3 ans ci appel mais précipitation boobu. quelle précipitation. pour appel. mais mais mais ci àtte ko déglu déglu déglu. ci àtte ko l'affaire l'affaire l'affaire Barthélémy Diaz est criminelle. Diffamation ki a fait 45 jours. J'ai dit, l'affaire diffamation, on a respecté les délais. On a renvoyé un procès, respecté les délais. On était dans les délais. Maintenant, pour voir en cassation. Délai, si délai, non, attends. J'ai dit. Délai, bon, on a rest... les délais. Délai, délai, délai, maintenant, maintenant, maintenant, puisque yon daf komay, moudem pourvoi en cassation, et heureusement pour lui, on ne parle pas du fond, mais on parle sur la forme. il n'a qu'à parler de la forme yoon moo ko ko may toutes les voies de recours yoon moo ko ko may parce que tamit nit ñiy wax naan il a perdu ses droits teguñu ko fenn parce que il lui droit il lui reste un pourvoi en cassation ok parce que la peine est partielle te pour mu mën a dem pourvoi en cassation il faut décision di justice bi génn fii ak six jours yi di jeex. non non non non yaa ngi war a dem pour en cassation su décision bi di justice bi génnee jour bi mu génnee ci lañ lay contel six jours mais génnagul parce que greffier bi moo ko war a bind su ko génnee ñu informer ko ba pare publier ko. première instance moom gaawoon na non <laughs> publier ko publier ko dans bi génn na. c'était tellement rapide c'était comme du fast publier ko dans six organes de presse. c'est ça qui important ba pare def ko domage et intérêt de deux cent millions teg ci contrainte par corps au max parce que dafa toogoon fii ci taxaw ci interview laay fam yooyu muy def ne du fay fifteen Mame Mbaye Niang tey moom dina ko fay te ba ma bañ ma ci laajee dam leen ne loolu na ko wax yoon tey contrainte par corps au max suy dugg ci kàmb sax dina ko fay Mame Mbaye Niang su ko fayul deux ans de prison ferme lay tëdd wala Mame Mbaye Niang saisir ay biens loolu la yoon loolu la décision de justice bi wone loolu la yoon teg Ousmane Sonko mooy deux cent millions yi da ko koy fay su ko ko fayul Mame Mbaye Niang su amee ay biens yu mu saisir ci Ousmane Sonko na ko saisir su ko amul su demul ba mënu koo fay te amul biens yooyu day dem tëddi deux ans de prison ferme. ok loolu mooy par contrainte par rapport au max. ok ñu gis Ousmane ko mu woote désobé euh, désobéissance civile. noonu lañ ko noonu la ko on ne parle on ne dit pas désobéissance civile on dit désobé désobéissance civique. civique voilà très bien. moom xamul. tur bee xaw a. moom xamul. tur bee xaw a compliqué non moom dafa xamul. tur bee xaw a waaw parce que le civil. Mhm. et le civisme. ok bokkul moom nag dafa xamul. ok puisque dafa xamul te bëriwul xam-xam nay laaj ñu koy wax. ok mais loolu loolu tey mu woote. waaw bu fekkee daf ci dem. ci dossier yi nga xam ne bu Mame Mbaye Niang bi peut-être pouvoir en cassation moo ci des l'affaire Adji Sarr également qui est en cours et qui est une affaire criminelle également boo xam dafa war a teew. ca diwaanu tribunal ñu wax ak Sénégalais yi il faut qu'on évite de jouer avec la mentalité suñu xel yi bu ñu bañ di foofu suñu xel yi en matière correctionnelle. su la neexee nga bañ a dem tribunal ñu juger le par défaut. oui donc li mu def nii du désobéissance civique du désobéissance civique du ko def du loolu. parce que yoon bañ koy njëkk a jugé di di ko jaar deux mois dafa daw demul il a été jugé par défaut. mais dans la affaire Adji Sarr. dans l' affaire Adji dafa war a teew la veille la veille maanaam le 15 Ousmane Sonko doit aller au tribunal se présenter devant la greffier. te s'il ne le fait pas. mandat d'amener mooy am obligatoirement le 16. parce que Ousmane Sonko kaso lay fanaan di ñëw tribunal nous sommes dans une affaire criminelle nous pas dans une affaire correctionnelle su ko deful am na yoon nu muy teg ci kawam loo xamante ni lu gën a garaaw li muy xalaat yoon laa wax de. est-ce que vous imaginez. y a pas d'imaginer yoon yoon la rek. des désobéissance civique. pour éviter de dire désobéissance civile comme ni mu koy waxee tegul fenn day nax nit ñi du ma uy ji yoon on verra ndax ne uy ji yoon parce que li ko yoon mooy la li ko yoon wax la tey avocat am duñ ko ci bàyyi du ma uy ji yoon te nga def appel sur le mm. dossier. mais moom nee na na ci terminus bi de dans l' affaire Adji Sarr. waxoon na ko ci Mame Mbaye Niang l' affaire benn c' est une affaire bu ñàkk fayda yi àgg naa ci terminus bi suba damay xëy dem tribunal ñu rek la koy bonne fois tout def ko doxal na ko mars gisoon na bi ñu ko tegee loxo la xewoon au niveau du Sénégal. attention tëj leen cette fois-ci aussi attention attention ils ont essayé plusieurs fois et jusqu'à présent mi ngi essayé.